waaye tamit ginnaaw loolu dañuy nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen ziar di leen wàccee seen wàccu waaye leen ñaanal jàmm waaye tamit di ziar ñi nga xamante ne ñi ngi safoo Elvision Média mbokk internet ñu leen ziar bu baax a baax waa bitim réew ñu ngi leen ziar di leen fii ci Kër Mbaye Fall seet si Mouhamed Fall di ko euh, di kenn ku nga xamante ni borom xam la di euh, ñaan ci alxuraan moom lañ fas yéene waxtaanal ak incha allah rabbi waaye tamit dañuy bàyyi mu nuyu téléspectateur El ak mbokk internet ak waa bitim réew salaamaaleykum Mouhamed waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu di wëlbatiku di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu baada ausu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah suma salaatu wa salaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli soxna si ñi ngi lay fay nuyoo ñu ni di jël suñu kàddu yu nuyoo di ko teg ci sa loxo wa atul buyuuta min abwaabiha nga yóbbaale personnel bi nga xam ne ñoom nga àndal di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan ci àdduna bi yépp di ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bi yépp salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah tey nag Mouhamed euh, Fall yow lañ sees woon fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ne ci domaine bi ngay liggéey dañoo bëgg tey tey premier sama première question mooy. dama bëgg xam ci wàllu élec ci wàllu élection yi lañ nekk ci lay wax ni parce que di si un mois incha allah rabbi ñu commencé élection yi lan mooy gaar nit ki ba du falu ak lan moo koy tax a falu. alhamdulilah rabbil alamin laaj nga. question boo xam ni yàgg naa ci bëgg a wax lool lool te ñu bàyyi ko xel gis nga soxna si suñu réew mi maanaam ñoo ko bokk fenn fu ci tàkk rek tàkkal na ñëpp fu ci am problème amal na ñëpp problème ñu bàyyi ci xel soo dégloo ci ñuy xëccoo jàppal bàyyil ji ku nekk di xëccu jëmale sa côté loolu moom boroom xam-xam yépp war nañu jóg ñu wax ci ñu ñaan ci yàlla nag subhanahu ñu ñaan ci yàlla ñu delluwaat ci yàlla jéggulu ko ginnaaw bu ñu ko jégguloo ñu tàllal ko suñuy loxo yàlla wis ndox mu sedd ci suñu dëkk bi sa maa ngi doon dégg ci yow nga doon wax ni si alaaji Abdou Aziz da doon wax naan soo nekkee ci gaal nekk ci ndox bul yor ëmb bul ñaan ëmb bi mucc na nga ñaan gaal gi mucc nga ni maam Abdou moo ko wax te lu am solo ngi noonu ko defee loolu nag dafay nekk kàddu yu nga xam ni ñu ngi koy lancé ci mboolem koo xam ni yàlla dogal na nga am ndomba tànk di jiite ci réew mi nañu jël seeni matuwaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ni kullukum raain wa kullu wa kullukum masulun an raayatihi nit ku nekk sàmm nga waaye sàmm bi ci gën a metti mooy ki yàlla jël réew peuple jël teg ko ci say loxo ngay diriger su ëllëgee yàlla dina leen laaj liñ doon sàmm naka lañ ko sàmme nañu delluwaat ci yàlla ragal yàlla su ko defee wax nga lan moo mën a gaar nit ki nga xam ba tax mu falu benn rekk muy dëggu ñàkk dëggu ñàkk a dëggu doomu aadama yu bari loolu moo leen gaar ñàkk dëggu li ñuy teg ci kanamu doomu aadama yi suñuy xëccu réew mi par rapport ak la ñuy jëf su passé waaw su passé waaw benn xale dafa tàmm wax ay fen lu mu wax rekk suñu xoolee fekk ni ay neen benn bis ñu dem ci tefes bi di permanent mu jekk ba yàgg rek mu mel ni mu dugg ci ndox mi rek mel ni ku euh, fe tàmm fen rek wax lu ne ko su dul noonu nax nit ñi daal yee maa ngi lab maa ngi lab maa ngi lab nit ñi bi ñu ñëwee rek mu daal di leen di ree ni leen dama leen di nax ca ëllëg sa ñu dellowaat yàlla dogal muy lab hmm? waaw mu yuuxu yuuxu yuuxu ñu ne ah kii daal la mu doon wax démb rek la waxaat waaye ba ñu xoolee xam ni kat caaxaan kii moom caaxaanatu ñu dikk génnee ko dañuy duma leen yedd sama bopp laa yedd parce que maa leen naxoon dem ngeen yaakaar ne dama leen di nax tey leçon la nit ñi li ñuy suñuy xëccu réew mi li ñuy wax nit ñi na fekk muy doon lu ñuy def yàlla mi ngi wax ci alquran nee na yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm yàlla waa Sénégal ak képp koo xam ne da nga gëm yàlla mel ni ñépp dañ ne tekk di ko déglu mu ne li ma taquluuna maa laa tafaaluun lan moo tax ngeen di wax lu ngeen dul def bëgg naa Sénégal tax nga ni dinaa def lii danaa def lii danaa def lii te su Sénégal su paasee yàlla ni leen attention kabura maqatan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun li ma gën a bañ man yàlla mooy nit kuy wax lu mu dul def su ko defee ñu ñaan yàlla yonent bi nee na ñaan mooy ngànnaayul jullit te ñaan nag man day fi mu ko gën a yaakaare nga xam ne su nangoo yàlla du su ko xasee nangu dootu la ko delloo foofu xam nga xam-xam dafa am ñaari façon dafa am lu ñuy wax sulmaani yu ak nuuraani yu waaw am na beneen boo xam ne dañuy wax ne xam-xam la waaye du xam-xam moom moom la ñuy wax karaamatul ayni sulmaani yu soo ko defee léegi mën ngaa gis léegi waaye su ëllëgee mën naa toj waaw soo ko defee léegi sulmaani yu mën naa nungu léegi léegi léegi waaye soo ëllëgee mën naa toj waaw ah, da ngay ñëw nit ki defaral la kànnaar nga ne soxna si kan nangam nit rat tëj dikk laaj ko mais après day toj. wala yeneen ak yeneen léegi waaye nuuraani yu mooy alxuraan te su boobaa alxuraan gaawu dañuy wax ni gaawuta nangu xay na waaye nag yàlla ala kulli xaalin lu muy nangu moom gaaw gaaw ak yeex la ci yamale da koy nangu waaye su ko yàlla xasee nangu dootu ko dootu dootu la ko delloo waaw su xanaa yaay def lu tax mu yàqu mm-hmm. waaw mais li fekk yaa ngi koy respecté ala kulli xaalin toujours yàlla di la ko nangul nañu ñaan yàlla gis nga am na turi yàlla bu ñuy wax yaa waduudu bayre bu am solo ngi noonu ci ñi nga xam ne ñu ngi xëccu réew mi waaw junj la nag doy na borom xel waaw bayre la de bayre la de xam nga mën ngaa am mbooloo soxidallah mën ngaa am mbooloo te mbooloo mi suñu wéetee la nga bëgg ci ñoom duñ ko def mais nag dafa nekk bayre bu nga xam ne mbooloo mi ngay am dafay nekk ñu nekk mbooloo mu dëggu waaw waaye génn fii ñu topp la diwa ngi a ngi digal waaye suñu duggee ci hernie war la boobu mbooloo yàlla nañ ci yàlla musal waaw toujours nga daa man kat am naa mbooloo may gañ a waaye suñu génnee résultat nga ne ah man kat yaakaaruma ni woon yaakaaruma ni woon nii lay demee dégg waaw su ko defee ñu bàyyi xel ci loolu mais yàwwa doodu lu am solo ngi noonu ala kulli xaalin waaw incha allahu taala junj la nag doy na borom xam ndax arab dafay wax ni a sirru sirrun maadam yu tëkkallam bi nee na sekkare sekkare la li fekk waxoo ko waaw baax na incha allah jërëjëf macha allah noonu nee na junj la doy na borom xel xam naa eh, sama mbokk yi nga xamante ni xëccoo réew mi rek boo leen ñëwee fii eh, kon secret bi moom dina ko gën a génnee incha allah rabbi ngeen utiliser ko. Ah, waaw waaw fii nag moom. wa waxewuñu waxu fans waxu taalibe. <laughs> waaw waaw ñun ñi nga xamante ne nañ dem abonné ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee nañ dem abonné El Vision